ka a ñeme yàlla waaye koo xam ne musoo xiif musoo mar musoo diñe musoo fande xamoo luy gubar jaasi musoo taxani sa tànk amul benn yanaar bu ci nekk musoo jeexaat musoo dem tool musoo suqi aw fas musoo wëgg musoo xont ak jur su ko neexee wax ni fii la juddoo liberté 6 gi su feebaree nu daw dugal ci oto bi taal clim daw yóbbu hôpital su ñëwee su fekkente ne maanaam café gi amul Nescafé ak suukar ak meew ah. mu futbal ko ak di lu muy xam ci ton ci tumuranke. ak di mburu bi day am croissant. non ah, xam ko mburu bu ñu def croissant. dagg def kii yu xonk yooyu. lu ko ay fromage gruyère ak yooyu. ay saucisson xaw naaj du ko lakk. xaw naaj musu koo lakk. mësta jeexal barka borom nu ko neex mel kii waaye ña xam ne seen tànk ay yanaar. te nag na nga xool président de la république yi fi jot a jaar ñëpp kan moo fi dund dund ci luxe la ko jalee ca war joojo nekkul président mais nenu làngaloon sax dama la koy indil ay maître Lamine Gueye xam nga li ma la koy indil waaw ah. dara su xëy sotti c'est vrai wallaay dara xëy sotti mais il faut un minimum il est né non il est né le 20 octobre 1800 non non. papa Ibra italien ba muy daw yéen ñaar ci ñaata ngeen toll. waaye Ibra italien ñuy taxaw ne doomu jàkkaarloo. Ah? Ah, Ibra italien ba dafa yàgg Ibra italien yi dafa yàgg. ñoom màgg nañu ba jël xale yi je veux dire ñun ay xale la ñu woon. boobu te. waaw boobu matérialisme mu ngi am. parce que fekk na ñoom. fii Sénégal xale jigéen ñi moodu moodu yi rek lañ tegoon seen bët yi parce que jàpp nañ ni kii dem moom mooy kii am. mooy kii am te yooya jamono te yooya jamono. te yooya jamono waaw danaa loox maa fii la ñuy nangu ci Europe. bu ñu ko nangoon ci Sénégal am xaalis. waaw Ibra italien mi ngi woon fii. boobu ñun ñu ngi ah. caari gi ak ñoom Maguette ñang bàjjenu xale yi. xam nga Maguette ñoo nekk. ñun ñëpp di seetaan Ibra italien yàggul. wallaay ndeysaan yàggul. ma xulee jógee nga may wax ay biir ak waaw Ah, ay alaaji Mor Mbay ñooñu nga may wax. ay le mandat yooyu. ay le mandat. ay bax. ñooñu nga may wax ñu yàgg. waaw tam la fee rey c'est récent. donc bi yàggul tam la fee boobu bu njëkk ba rajo la boobu télé amul alaaji Mor nan daan wax. Mm-hmm. waaw waaw c'est vrai. alaaji moom mbay sama alimet yàgg naa am yàggul bu dëkk ci mango yi. Mm-hmm. sama alimet ñii fekkewuñu dara. Benoît li muy wax fekkewul dara dara dara. non xam nga li nga waxee Benoît dafa judd ci luxe màgg ci luxe. di dox ci luxe di am li ko neex kon du xam lu metti ah? li nga wax amul dara lu mu mën a conseiller kenn ndax fekkewul dara ci démb. waaw papa dikkal toog. fekkewul ci démb dara. mais papa. te oustaz Alioune Sall moom moo wax kàddu googu ne ku amul. war nañ koo mën a may soxla. papa kaay toog ginnaaw kaay toog loo koy dundalee. kaay ah, toog loo koy dundalee. yàlla gémmiñ ji mu xam loo koy dundalee société bi fi mu toll nii. loo koy dundalee. Euh, euh, ginaar rek. ginaar bu baax quoi ginaar bu baax. waaw ginaaru lan. 3000 lay jaar. Mhm. ginaar bu ñuy lekk noonu waaw. waaw ginaar bu baax. ginaar bu ñorul laa la wax de waxuma bu ñor. bu ñorul waaw 3000 lay jaar. dëgg la waaw. jigéen ñi. waaw. bëgg nañu seen bopp bëgg bopp boo xam ne. waaw pour ñoom. waaw bu ñu yeewoo war nañoo mën a sax journée bi. waaw defar yu baax daal di lekk. waaw. ñu bëgg hmm. nga sëy ak koo xam ne amaana mënu laa yor. waaw c'est juste une question. waaw parce que gis nañ ko ci société bi ñoo xam ne. waaw comme ni ko pros waxee hmm. mënuñoo yor seen bopp sax bay yor keneen dëgg la ñu jël la may la doomu jàmbur ngay dem boo waree sóor dem sa yaay di ko ñaan ceeb waaw wala ngay dem sa yaay di ko ñaan ci nduggam pour mën a togg waaw mais di jàppee ku muñ parce que dañ ne instant boobu mooy instant bi metti bi mais ak société bi nu mu tëddee fi mu nekk nii mm-hmm. est-ce que parents yi mm-hmm. est-ce que xale yi elles sont prêtes mm-hmm. xale yooyu noonu jigéen yi à sacrifier leur vie pour góoru tey ah c'est très dangereux su fekkente ne tase nga ak góor goo xam ne aw ñàkkam du ko wër kooku moom soo ca duggee wanteer nga sa bopp ndax it wax rek laa ci mën waaye mënu mën a tey ngeen def lii mhm. ndax doonu jékki-jékki ne bëxët nit mu dem indil ma benn clochard bëgg ko papa la ngay wooyu clochard maanaam koo xam ne nanguwut liggéey du faste xàncak moroomam mënta teel mënta yëkkati birig xamul marto ak brin mënta mélanger un sac de ciment jottali ko maçon yi mënta daaj ab safo dara munu ko keppaar fu ko kerug suba gi fekk fa la ko kerug ngoon gi fekk caayin rek suba ba ngoon attaaya nga bëgg ko waaw bëgg ko boobaa lu ca fekk nen na mënoo ca dara nen na nga jàpp yara yara yara ci biir kër gi di defar di xajji di def lu nekk nit ku ko gis dina taxaw daal ne doomu diw moo yaru waaye su génnee diggante école ba ak famille jaar ak salon de coiffure ba ak famille demee di jënd ay habillement hmm? jigéen ni moom sopp na ko fa ba détourné ko yóbbu ko foo xam ne jàngal ko jigéen ak jigéen am na kay du jeex ah, am na am na du am na mm-hmm. jàngal ko fa loolu ndax kooka ndeyam la wala way jur la ndax nee ngeen laa faute ak kii ñu ne aux parent waxu leen loolu léegi yéen wax le waa léegi est-ce que kooku parent ba def na ca dara yar la sa baay di imaamu jàkka sa ndey doon koo xam ne xamuñ dara ab laa budda la boo xam ne loo ko newul lii la du ko kii nu xool la sa taay jekk sa forme jekk ngay génn di baagante diggante fi ngay demee di jàngi ak salon ba ngay jaar ak mbedd ba ngay jaar nit dugg na la fa lonkoo ak yow xaritoo ak yow ba soppi la def la jigéen joo xam ne maanaam duy tëddee jigéen ngay doon wala du jigéen di tëddee. ci alal. ci xaalis. dégg naa doon yi maye xaalis de ñooñu dégg naa ay joxekat na ñuy doon de. Ah, ah, ah kay dégg naa ko dégg naa ay joxekat na ñuy doon da ngay changé da ngay changé ki nga doon ngir alal. man daal xaw ma ci dara. waaw d'accord man dooma enquête ba bëgg maa rey. ah déedéet xam naa daal li ma la wax am na. waaw li ma la xam na man dooma bëgg a rey bu leen ma réeral. li ma la wax yéen a ma ko gën a xam. papa mais bu baax mais dama lay laaj dama dem ba. papa bu baax mais dama lay laaj. ndaxam dafa changé li mu doon ngir alal wala noonu la mel. dafa bëgg bon loolu mënu caa dugg te am xaalis àndu ca. non dafa la bëgg ni la dafa bëgg bon. kon papa xam nga affaire yi kon. maanaam. Ah. waaw informé nga. ah yow tamit bis bu nekk ma ànd ak yow nga di woon ci net bi. ay ay waay borom tu ah. ñëw musuma ànd ak yow yow su ñuy dem buutu. papa ah déet. papa ah déet ginnaaw ci barke borom Tuuba su ñuy dem buutu ma ànd ak yow. pare naa ci papa pare naa ci. saaga saaga wuñ ma ne ah, de bàyyi papa bàyyi papa ak saaga benn la. gendarme yeeg eh, tele nga ne waxal li ñu wax. gendarme yi dañoo dal sa kaw ne la saa yu paa bi waxee. ah bàyyi père lañ wax ngay saaga ngay saaga mel ni dañoo demoon papa eh, léegi dama lay laaj non non non li ma lay non non maman dama koy laaj de dama koy laaj li mu wax c'est très important dama ni ah, léegi dama ni papa da ah, nga wax dafa am importance c'est-à-dire jigéen bu nekk ak ay xaritam ñu xëy détourné ko on est d'accord waaw d'accord léegi détournement bi alal la alal la wala bëgg-bëgg boppam la bon ñaar yëpp mën na ci am ndaxte mën naa doon koo xam ne soo ko bëggee détourné tugal ko ci loola su xoolee sa comportement nga nekk ci luxe boo xam ne moom pour moom yaa ko gën a aisé. Mhm. li ngay sol du ko sol waaw. pour yow kooku doylu na mooy mooy yar bi ma doon wax. néew ma la yaruñu ko ci doylu. néew ma la buñ ko yoroon ci doylu dina dem ba changé orientation sexuelle am. mais déglu woo de xamoo fu ma jëm. parents yi luñ la yar yar ci doylu sa yaay di nga ko dégg benn jour muy joytu comme quoi que mi ngi xaar ba defal ko. danga maa dagg ci ni tegu fi na yow ki duggoon léegi France ne ne naa noppi nay prospère duggal wax ne kii na noppi. léegi papa man dama lay laaj man kii laay wax ki duggee woon Europe dama lay laaj dama ah. changer orientation pour de l'argent c'est grave. xoolal li nga wax ci yar gi. waaw ak ngëm ak lañ la yare dëgg la. dugal sama sën dafa nekk benn xaleel dem ci kër gi mu nekk jël fa xaalis. bu mhm. bare. Mhm. bu teyee mu may ci cinquante mille. Mhm. bu subaa mu may ci vingt cinq mille. mu ñëw ba ci sama sët bi may ko vingt mille. sama sët bi ñëw ba ci yaayam ni ko yaay. dafay ñëw daal di distribuer xaalis vingt mille yi la ma may yaayam dugal ko ci otom taal ñu ko nañ dem nga won ma kër école xale ba ñu dem àndandoo la mm-hmm. parce que moom xaalis bi bare na dafa tiit yaayam yóbbu ko ba ca foofu mun ko xale bi fii la dëkk mu dugg xale bi mu élève bi ni diw ñu ni diw mu ne ñu ni ko kaay mm-hmm. mu ni ko yow yaa ngi yàqule ba nga mayee sama doom xaalis xam nga boobu ba léegi yaa ngi maye xaalis mosoo waaw mën ka nga fab nag may kii xaalis waxuñu bëccëm ndax bés bu nekk mu ngi gis xaalis te xam na li bàyyi ñu yor gis na ñun li ñu yor kon yaa nga yàqule ba nga ko maye xaalis boroom kër gi daal di ni ci toneen nii jabaram man de jël nañu xaalis ci armoire bi mais bugguma woon wax comme ñi fi ne juruma leen mhm, jiñ day bañ a jiñ léegi ñu ni jiñ naa lii wala jiñ ji lii wala jiñ naa ñaata la jël ñu ne mu ni nañ ma presque un million mhm. ci xale ci xale ngay maye par cinquante mille nangam nangam. déglu loolu. te toujours mu ñëw may ki cinquante. du feeñ mu may ki vingt cinq du feeñ. mu may ki mais bi mu mayee sama sët bi vingt mille dafa tiit ñëw ni yaayam xoolal chaque jour nag mu may xale yi xaalis. chaque jour mais yaayam moo ànd ak moom gis nga bi ñu woowee xale bi ñu wax ko mu ni du man rek man ak diw la ñoo ko séddoo. d'accord. te moom waa ji nee na juruma leen mënuma tëb wax ñu ne li mu leen jurul moo tax mais jël nañu xaalis bi li nga wax dama lay fekk si ci li nga wax rek mhm. ci xale bu ñu yar ci dara ak xam daal xam ni kii lii jaadul ndax kii ñu bokk classe mu war a am lii di ko war maye nee na yàgg na di ko gis waxul dara mm. yaayam na ni ko yaa ngi leen bi nga mayee sama doom ca la feeñi d'accord ci li nga wax nii bu fekkee bu doomam ci li mu ko yar waaw man na ñoo xam ne seen yar ci biir kër gi lay yem ci kër gi daal la ñuy ci biir kër gi lay lay yem mhm. tey di nga yar sa doom ci biir kër gi comme li ma wax sànq mu génn mel neneen tey vingt mille francs yooyu mënoon na nekk beneen xale yóbbul ko yaay mën na ko indi ko ma dépensé ko jéemul lijjanti fan la mhm. tey parent yi yéen defar ngeen mais aussi parents yi tamit yàq nañu nañ ko dagguma ko dama koy rejoindre parce que c'est des faits de société mais attention mm-hmm. way jur bu yar mm-hmm. ba nga màgg ne man ku góor kii laa bëgg du ci yoon way jur bi mm-hmm. du ci non ku góor kii laa bëgg moom laa doon wax tout à l'heure prospère di ko wax ne boo yaree sa doom fi nga ko war a yaree bëgg mu stable moom mu xëy bëgg la indil nit koo xamante ni bëgg la ko forcer c'est la même chose ak tamit nga dem ba màgg ni yow da nga bëgg dem dundi loo xamante ni euh, neexul nit ñi loolu problème u parents yi fi may waxee éducation laa wax mais boo demee di dund dara ba pare dugg ci ngir alal loolu dama ne sa baas dafa rate yaay du yéen xale lan lañ ko daan def dañ koy yar di ko tere ñaan mhm. tere ñaan ngir doylu la tere jër alalu jàmbur ngir doylu la jooy ci alalu jàmbur ñu dóor la ba nga tëdd ci suuf ngir doylu la man foofu laa doon expliquer waxuma ne li muy wax amul mais dama ko laaj parce que aspect bi ma intéressé woon mooy ndax kële dafa dem topp ay xaritam di nekk ak ay jigéen mhm. ndax alal wala ndax boppam parce que adduna bi lu waaye def boppam maintenant bu fekkee nag ngir alal day ñëw rejoindre lii ñuy wax nii yëpp muy sii les parents on une bonne assise gis nga yaay fii ku fi am bonne assise d'éducation doo dugg ci dara ngir dara te ci luñ la fekk dangay ngay say responsabilités amplement mooy ne yaa ngi dugg ci dara kii prospère la buñ la doon door fii ba suba di la diri au moins sa yaay dina ne la pourtant je t'avais prévenu yaa def choix bi mais pas ñu la koy defal à leur place d'accord merci Sophie xam naa dañuy dem jëli publicité bi suñu ñëwee ñu laal benn point c'est-à-dire bu fekkee yow xaalis moom moo dicté sa choix par rapport ak góor bi nga bëgg est-ce que impérativement sëy boobu du dem bu fekkee xaalis nga nga jiital